abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen leen ak jàmm seen chaîne bii di FTTV Sénégal samp ab laaj daal di koy jëmale lu tax ci réew mi di Sénégal ñu daal di seel parti bii di PASTEF ba noppi daal di fiy bàyyi parti bii di APR. bi nga xam ne ne li muy def di ko amal ci ñaawteef beneen parti politique du ko amal ci réew mi di Sénégal si mbir moomee nag kenn mënu see àddu te doo jiital njëkk ci forme bi nga xam ne ne moom lañ seeyalee parti boobee di Pastef parti boobee di Pastef kii di président Macky Sall di njiital la parti moom moo ko daal di seeyal si loolee tamit laaj bi mooy ndax war nañoo jox ab njiitalu parti politique mu daal di am dooley daal di mën a seeyal beneen parti politique ndax loolee juridiquement misaal bi moom mooy aawook ñaareel daal di jàppante seen biir kër ñu dem biir tribunal ñu jël aw bi yégal ko ci kaw ne ko doonal juge buy àtte coow loola nga xam ne dafa jaar ci diggante moom ak ñaareelam bi si li ni mel lu leer ba am mooy que ne aaw boobee dëgg bi moom lay jël daal di koy féetale boppam parti bii di Pastef nag ak parti bii di APR misaal bi ci réew mii di Sénégal noonee la mel ndax kii di président Macky Sall ak kii di président Ousmane Sonko ñoo jàppante kii di président Macky Sall am doole daal di seeyal partem te loolee du dëgg waaye tamit loolee du yoon kii di président Macky Sall ba muy seeyal parti bii di Pastef lay bu mu gënoon a am bu dëgër ne mooy que ne parti bii di Pastef ak parti bu yee fitna la fépp fu ñu wootee dina am ñu ñàkk seen bakkan ne li ni mel moo tax mu daal di koy seel ci réew mii di Sénégal waaye waxtu boobee président Macky Sall di amal li mel ci biir partem boobee di APR ki ñu dippee Suzanne kamara kookee génn na daal di xamal sénégalais yi que ne kii di président Ousmane Sonko dañ ko war a rey ci réew mii di Sénégal waaye loolee sababul ñu daal di dissoudre parti bii di APR ci réew mii di Sénégal ginnaaw loolee tamit luy prouver que ne parti bii di APR ñoom ñoo gën a violent ci parti yu nekk ci réew mii di Sénégal yëpp mooy que ne fépp fu ñuy amal ay yëngu-yëngu ay takk der yu bëri lañ leen di booleel ngir ñooñu ñëw daal di leen di sécuriser te boo xoolee yëngu yooyu ñuy amal seen biir ñoom seen wàllu bopp ñoom ñoo ciy jàppante gaañante yóbbuwante ci seen biir polis te beneen parti politique du ko fekkee te li ni lu koy firndeel rek mooy jàppante bi ñu doon jàppante seen biir démb ci seen permanence bu nekk ca Dakar. abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am xibaar.